nanu bamtu nettali bi weesu benn ban ndigal la yeesu wax ne moo gën a màgg ci ndigal yi te ban moo ci topp yéesu nee na na nga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp ak sa xel mépp loolu moo di li jëkk te ëpp ci li yàlla santaane te ñaareel bi noona la mel na bëgg sa moroom ni nga bëggee sa bopp ñaar lan lañu war a def te bañ a jaaxle war nañu wut yàlla wut njubteem noonu yàlla dina faj sunuy soxla ñett lu tax yeesu doon lépp yeesu doon na lépp ngir ñi bëgg a dégg dégg te ñi bëgg lu dégg bañ a dégg ñeent lan mooy sobe lépp lu bon tey génnee ci xolu nit sunu bëgg-bëggu xol mooy li tax nuy bàkkaar bàkkaar mooy taxal nit sobe juróom lan la waxi yéesu tekki bi mu nee war nañu judduwaat mu ngi tekki ne war nañu judduwaat ci sunu xel jaare ko ci xel mu sell mi bu nit ki judduwaatee xel mu sell mi mooy dugg ci xolam ngir nit ki xam yàlla am cofeel ci moom te déggal ko su ko defee dinañu fasaat kóllëre ak yàlla juróom lu tax yàlla yónni yeesu ci àddina yàlla yónni na yeesu ci àddina ngir mu musal nu ci mbugalu sunuy bàkkaar te jox nu dund gu jeex